privilégie la paix de proximité. internautes de Pikine TV ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen dalal ak jàmm ci seen revue de la semaine euh, mbégte lay doon rek saa su ne ñuy teew ci seen kanam di leen jottali li nga xamante ne moo fi jot a xew ci semaine bi euh, ñu dooree seen revue de la semaine rek ak conférence internationale bi ñu jagleel euh, wàllum mbay bi sommet Dakar 2 bi nga xam ni Sénégal ak banque bi di banque africaine de développement ñoom nag ñoo ko amal. somb bi mu ngi door le 25 bi ñu génn ca jam ñaajo moom jiitu réew bi moo ko présidé ci teewaayu ay naataangoom ren nag thème bi ñu tànn mooy dundal Afrique ci wàllum souveraineté alimentaire waaye itam ci résilience luñ ci mën a jàpp bokk na ci ñeenti poñ yi nga xam ne njiitum réew mi wax na ko fa muy jox. Euh, gëdd lii di saytu gi ñuy saytu lu jëm ci wàllum agriculture waaye tamit jongal euh, njumtukaay yi jëm ci wàllum mbay mi waaye itam maîtriser ndox mi waaye tamit yokk utilisation xarala yu yees yu dëppoo ak mbay mi euh, bokk na tamit ci leneen lañ fa wax mooy transformation locale boobu sommet nag tey jii la nara ndar kepp foofu ca jam Nous avons rek wax complexe Cheikh Ahmadou Bamba de Touba euh, le 6 février bi ñu complexe bi euh, ngi dugg rek ci vision ak principe religieux bu Ahmadou Bamba am ci complexe bi ngi 37 milliards ci sunu ay euh, nga bu nek rek na ci bâtiment administratif ay infrastructure pédagogique ak sociale euh, dina mën a jël rek lu toll ci 10 000 ndongo ñu àddu rek wax ci transporteur yi ndax ñoom nag dakkal nañu grève bu amul app ba ñu dooroon euh, ginnaaw rek ba ñu gisee ak ki nga xamante ne moom moo di xalif euh, général des Mourides waaye tamit amal nañ ab waxtaan ak gouvernement bi euh, ba mel ni rek am na ci ay pong rek yu ñu déggoo lu ci mel ni rek yóbbu li nga xamante ne moom mooy di daw guddi gi rek ba minuit lañ koy fas yéene dakkal ba 5 heures ci suba. ñu àddu rek wax ci meeting bu Pastef ba ca Kër Massar ci boobu boobule meeting waa Pastef doon ci rendre hommage euh, seen benn militant bu génn àdduna ci circonstance yu ni mel. Euh, Mariama Sagna lu ñu mën a jàpp ca boobule meeting bokk na ci leader bu Pastef la mu fa wax muy pare na euh, pour njàmbaarloo ak euh, Macky Sall te lu leen ci fekk muy loolu ndax pare nañu te def nañu seeni testament leneen lu ñu ci mën a jàpp rek ca boobule meeting bokk na ca gatsa gatsa bi nga xamante ne leader bu fu woote na ko ca boobule meeting ginnaaw événement politique yi nga xamante ne jot na fi am waa Afrique Jom fësal ñu avons communiqué di si pouvoir bi ak euh, ngir ñu amal waxtaan gu deggu ngir ñu situation bi ñu nekk euh, menace réew démocratie euh, ngi ci commission politique de la paix et de la sécurité bu ak Union africaine ngir ñu ngir ñu mën a teew euh, dak ci Dakar rek dànkaafu crise buy xeeñ woon nañu ci itam euh, CPI UNOWACS UE euh, les États-Unis ak képp rek ku mën a aider ngir ñu mën a amal dialogue politique fii ci Sénégal Euh, ñeneen rek ñu àdd ci jàmmum réew mi mooy cadre unitaire de l'islam fii ci Sénégal ngi wax naan li ñu gis ci réew mi euh, jaaxal na leen ba tax ñuy wax naan dañuy war a sàmm jàmm réew mi euh, rawatina kii di jiitu réew mi nga xamante ne jëloon na ay engagement ca 2021 ñoom ñi teewoon ñoom ñi tegoon charte de non violence ginnaaw manifestation Euh, mars bi 2021 jàllee ñooy woo acteurs politiques yi euh, ngir ñu xoolaat seen xel ngir jàmm ak dalub réew mi Euh, bu ñu wachi ci loolu rek wax ci haute cour de justice député bi di Biram Souleye Diop euh, bind ki di Cheikh Tidiane premier président euh, bu cour suprême bobu les bataxal Biram biram Diop fessel mo ngi ci wax président de l'assemblée nationale da bañu convoqué assemblée bi ngir amal élection bu juge membre de la haute cour de justice lor waral mu bind ki di premier président cour suprême rekk ngir mu àddu ci Euh, dañuy desandi ba tey ca assemblée nationale ginnaaw ba bureau assemblée nationale ba dajee ci sàkkute APR sukkandikoo ci constitution buy wax ni képp ku bàyyi groupe euh, ba nga àndal day ñàkk postam amal nañu ab vote euh, ci vote yooyu nag 10 nangu nañu 6 ya bañ ba tax kii di Aminata Touré nekkatul député ca assemblée nationale ba ki ko remplacé mooy Aïda di membre Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaanu Pikine mom nak Aminata Touré waxna ni dak dak bi nga xamantene dak nañ ko du leneen ludul salfañe loi waxna itam ni tay lay gën xex ci li doxal démocratie ak xex bépp tentative de troisième euh, mandat dañuy euh, descendi ci ki fi nekkoon rek premier ministre di Aminata Touré jana wonna ak to yi ni ki demb mom nak ma ngay di opposé wu ci troisième candidature bu Macky Sall nee bu jaxé ñu bàyyi ci bakkanam ci xeex bi dana ko def teg ci naan pare na euh, ndax ak Macky Sall rek moom dara du ko bett euh, ca boobule janoo ak taskatu xibaar yi moo ngi. Euh, aux force de l'ordre yi ak magistrat yi ngir ñu xolaat euh, seen bop xamni ni peuple bi mo len fi pas au service de Macky Sall ci lolu nak ma ngay lancé ben plateforme nationale de défense de la démocratie en vue de préserver ses acquis euh, kenen rek ka ak taskatu xibaar yi mooy ki fi procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye euh, buñu sukkandiko ci ay kàddoom moom of OFNAC bi neena li janoo ak taskatu xibaar yi mooy leeral li nga xamante ni Ousmane Sonko mu ngi ko koy tuumal ni doo ko bëgg tëcc euh, daa dugal ay photo ci PV bi pour dugal ko moom nag Bassirou Gueye nee na loolu lépp ay euh, sos la amul. ci PV bi am na sept wax yu dëppoowul. yoo Hamantene xamante ne noté nañ ko ci ki nga Ousmane Sonko ak ñett rek Hamantene. xamante ne noté nañ ko ci ki nga xamante euh, di Adji Sarr ñu wax ci euh, muy rappeur bi di Nit Dof moom alias Nit Dof mon ngi mandat de dépôt lu ñu koy toppee mooy menace de mort ci ay autorités judiciaires euh, désobéissance aux institutions wote violence ak appel à l'insurrection Mon nak ki nga mon silaam euh, ma ngay génn rek di ñaan rek ngir ñu may ko njëkk même si que nee na xam na ne kii di dof li mu def dëppoowul ak yoon waaye nag mi ngi ñaan njëkk rek ngir ñu bàyyi ko mu dellu ca njabootam euh, ñu wax rek ci ki nga xamante ne moom moo di policier bi di Sidi Bougalep génn na ca kaso ba ginnaaw euh, ba ko cour d'appel daane 10 ans at biñ ko doon toppee ci étudiant bi di Bassirou Faye ci atuma 2014 mom nak ñu ngi ko doono ñu ko daanon 20 ans de travaux forcés ak amende bu tollu ci 50 millions ci sunu ay koppar policier bi di Sidi Bougalette musul nangu ni moo faat ki du euh, fay ñu àddu rek wax ci leneen. muy tiis gi nga xamante ne dal na waa ginnaaw raay euh, noor ay ndaw yu duggoon ci ab batiment di ut feexaay ba benn lento daanu seen kaw ba am na nag ku ci joto ñàkk euh, bakkanam am ku ci am ay gaañu gaañu yu xaw a metti xaw a doy waar ba ma nga ca hôpital bu Thiaroye Euh, waa gox ba nag ña ngay ñaawlu ñàkk accompagnement bi nga xamante ne APIX wane na ko euh, ci fàttali nag kër yooyu ay kër yu yu yàqu la ba seeni ay boroom nag jot nañu tuxu ndax dañ leen joxoon délai euh, pour ñu génn ci yooyu les kër. ñu àddu rek daal di wax ci tàggat yaram bi ndax association nationale de la presse sportive fësal na ñi nga xamante ne ñoom ñoo gagné prix yi ci année 2021 2022 trophée ANPS 2021-2022 Sadio Mané Modjel Rao ballon d'or euh, sénégalaise pour trophée Jules François Bocandé euh, pour la septième fois l'équipe nationale de beach soccer trophée Amadou Dia qui est euh, champion d'Afrique quatre fois défilé ak nek 7 septième fois ñuy jël prix Amadou Dia Lamine Diadou jël prix Ibrahima Koulibaly moy meilleur joueur local bu saison bi ASC jamono nak dem na final ak ki nga xamantene mom moy Cité Police ci wàccaayu finale. ba nak ñi di ASC jamono amal nañ ab set setal ci seen gox amal tamit liñ naan marche de gala eh, ngir wat wa gox ba waye tamit def nañ li nga xamantene mom modi moo Kamil pour ñaanal ñi nga xamantene dañoo dëddu won aduna Euh, gox ba muy initiative bu rafet boo xamante ne waa ASC jamono jël nañ ko pour wane beneen xar kanam bu jëm ci wàllu maanaam bu nawetaan wane ne nawetaan du loo xamante ne